alhamdulilah alhamdulilah alhamdulilah bismillahi rahmaani rahiim wa min fadaa'ilihi anna kulla nabiyyin dakara allahu taala xaalahu wa annahu gafara lahu ma kaana minhu نص عليه فقال في قصة موسى رب إني قتلت منهم نفسا وقال إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له ونص على ذنبه وسأل ربه المغفرة وأخبر عن داود لتسور, لتسور عليه الملكان فقال إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فذكر الظلم والبغي فقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض فقال وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفرنا له ذلك ونص على زللهم وخطاياهم وأخبر عن غفرانه لنبيه عليه السلام ولم ينص على شيء من زلله إكراما له وتشريفا فقال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر fa hada gaayatu fadli wa sharaf mu ne bokk na ci ngëne li nga xam ne ba tey yàlla jagleel na ko yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam walis yeneen yonent yi mu ne yonent bu nekk su fekkee ne def nga njuumte wala nga def loo xam ne jàpp nga ne bàkkaar la sa diggante ak sa borom da ko tudd jéggalu ko mu jéggal la ko dana tudd moom yàlla itam net ci li li nga defoon waaye nag yonent bi moom buñ nattalee woon na dana def sax bu defoon jégal nañ ko te defut mu ne ci xissa yonent yàlla Moussa da nga di gis Moussa na rabbi inni qataltu minhum nafsan tudd na lim def moom Moussa pare waxaat ne inni zalamtu nafsi faghfir lii ne tooñ naa sama bopp yàlla nga ma baal yàlla ne fa xafar naa fa xafara la yàlla baal ko loolu mu tudd mu ne yàlla tudd na bàkkaar bi mu def ba pare door a tudd njégal gi nga ko jégal mu ne ba léegi ci yonentu yàlla daawuda bi mu tuddee tooñ yi nga ak mbewte gi nga xam ne yaakaar naa ne yàlla nga ko ko jàppal daf koo tuddal boppam daf koo tuddal boppam moom daawuda stagfara rabbahu ba pare balu boromam pour mu baal ko daal di rot rukkoo ci suuf dellu ci boromam yàlla ne ma daldi ko baal loolu nga xam ne moom la def mu ne ñoom ñépp ku ci nekk rek su fekkee am na lu mu def yàlla dana ko nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci alquran door a wax ne baal na ko mu ne waaye nag boo ñëwee ci digganteem ak yonent bi sallallahu alayhi amul lenn lu mu ko nettalil waaw daf koo teralee rek ne ko baal na ko lu jiitu ci ay bakkaaram ak li mujj su fekkoon ne nattale na nat ci nattale bu yàqu sax mën naa def bakkaar kon baal nañ ko waaye nag ci teraanga lañ ko ko defalee ak yëkkati gu màgg te tudduñ dara ne moom la yonent bi def sallallahu alayhi wa mu ne nag loolu mooy dayooy ngëneel mooy dayooy teraanga min fadailihi axudu llahi almithaqa ala jamici anbiyaihi in jaahum rasulun amanu bihi wa nasaruhu fa lam yakun li yudrika ahadu minhum rasula illa wajaba alayhi alimaanu bihi wannusratu lahu li axidi almithaaqi minhu fa jacalahum kullahum atbaan lahu yalzamuhum alinqiyaadu wattaacatu lahu law adrakuuhu wa dalika maa xaddatanaahu muhammadu bnu ahmad bni alxasani qaala xaddatanaa yusufu bnu alxakami qaala xaddatanaa muhammadu bnu daa xaddatanaa hushaymun qaal xaddatanaa mujaadilun an shaabiyi an jaabirin an umar bni alxataabi radi allahu anhu qaala ataytu nabiya sal allahu alayhi wa sallama wa maci kitaabun asabtuhu min bacdi ahli alkitaab fa qaal walladi nafsu muhammadin biyadihi law anna muusa kaana xayan maa wasicahu illa an yatbacani ba tey ci ngëneel yi nga xam ne yàlla jox na ko yonent bi sal allahu alayhi wa sallam mooy ne yàlla jaayantew nag mbooleem yonent yi ne ku ci taseeg yonent bi sallallahu alayhi wa ko gëm te da ko dimbale su fekkee ne sax yàlla xam na ne duñ taseeg moom jamono terewul jaayante naag ñoom loolu ba kenn ku nekk ci ñoom farata la woon yoo xam ne mu ngi ci kanamam ne bu taseeg yonent yàlla muhammad du def lu may topp ci gannaawam ak gëm ko te itam du em foofu dana ko gëm dana ko dimbale ndax loolu ñoom moom lañ jaayante seen diggante ak seen borom yàlla def na leen ñuy ay saxaaba ci gannaaw yonantu bi di am topp ci gannaaw yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam su fekkoon tase nañu ak moom di la tasewuñ war na leen ñu ommatu ci gannaaw war na leen itam ñu topp suñ fekkoon ne jot nañ ko ci jamono solo nañ ba tey jëlee ci Seydina Omar ibn Khattab radiyallahu anhu Seydina Omar mu ne dafa ñëwal yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne fekk mu ngi amee benn téere boo xam ne mu ngi ko jëlee ci ñooñ kitaab ñoñ téere maanaam ci yahudi walla ci nasraani mu ne ba yonent bi gisee téere bi ci loxoom yonent bi ne ko maa ngi gëñ ci nga xam ne bakkani Muhammad bi ci loxoom la nekk ne Moussa su fekkoon ne mu ngi dund dara du ko mën lu may topp suma gannaaw rek loolu yonent bi wax na ko ci beneen riwaaye itam saaba yi ñoo toog bis naan cey adama mi nga xam ne yàlla ko bind ak loxoom cey Moussa mi nga xam ne yàlla dafa doon wax ak moom cey Isa mi nga xam ne amul bàyyi yàlla loxo yàlla la cey Ibrahima mi nga xam ne yàlla ko terale woon ba mu demee ci bañ ko sànne ci safara si yonent bi génn ne lu ngeen wax ñu noppi mu ne dégg naa li ngeen wax waaye ñooñu ngeen di tudd ñépp suñ tase woon ak man duñ man du may topp suma gannaaw rek sallallahu alayhi wa sallam wa min fadailihi an farada allahu taatahu ala alaalami fardan mutlaqan la sharta fihi wala istithna kama farada taatahu fa qaala wa ma ataakum rasulu fa xuduuh wa ma nahaakum anhu fantahu wa lam yaqul min taacati aw min kitaabi aw bi amri wa waxyi bal farada amrahu wa nahyahu ala alxalqi turan كفرض التنزيل لا يراد في ذلك ولا يحاج ولا يناظر ولا يطلب منه بينة كما أخبر عن قوم موسى فقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة mu ne ba tey ci ngënee li nga xam ne yàlla jagleel na ko yonent bi ne yàlla farataal na ci mbooleem alam bi maanaam mbindeef yépp lu dul yàlla rek dugg nga ci biir ne danañ topp yonent bi topp koo xam ne guñ boyal la amul benn charte amul benn setti yàlla farataal na ci képp koo xam ne mbindeef nga rek ne bu la yonent bi dikkalee wala lim indi bu la dikkalee da ko topp wa ma ataakum rasulu fa xuduuhu wa ma nahaakum anhu fantahu lépp lu mu diglee danañ ko topp lu mu tere danañ ko bàyyi te mu ne amaloon ko chance waxut ne lu leen digal ci suma ngeen topp wala lu mu leen digal loo xam ne mu ngi suma téere wala lu mu leen digal fekk suma ndigal la wala lu mu leen digal fekk maa ko wax yu déedéet daf ko ubbi rek lépp lu yonent bi digle rek farataal na ci ñépp pour ñu topp ko ndigal yee war nañ koo topp tere yee war nañ koo bàyyi te loolu mbooleem bindee fii la war waaw ni nga xamee ne li mu wàccee ci alquran noonu la leen waree amul luñ ci werante amul luñ ciy delloo topp kooku itam noonu la waree ñépp alquran sax ne na annabiyu awlaa bil muminina min anfusihim loolu moo gën a màgg sax yow sa bopp sax yonent bi moo la ko mu la ci gën a ay waxuma leneen ومن فضائله أن الله تعالى عز وجل قرر اسمه باسمه في كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائضه وأحكامه ووعده ووعيده قال أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال أطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين وقال ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وقال استجيبوا لله وللرسول وقال ومن يطيع ومن يطيع الله ورسوله وقال إن الذين يؤذون الله ورسوله وقال براءة من الله ورسوله وأذان من الله ورسوله وقال ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله وقال لم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله wa qaala innamaa jazaau alladina yuxaaribuuna allaha wa rasulahu wa qaala walaa yuxarrimuuna maa xarama allahu wa rasuluhu wa qaala wa man yushaqiqi allaha wa rasulahu wa qaala quli lanfaalu lillahi wa lirasuli wa qaala farudduuhu ila allahi wa rasul wa qaala walaw annahum raduu maa aataahum allahu wa rasuluhu wa qaaluu xasbuna allah sayuutiina allahu min fadlihi wa rasuluhu wa qaala fa inna lillahi xumusahu wa lirrasul wa qaala wa maa naqamuu illaa an agnaahum allahu wa rasuluh wa qaala wa qaada alladina kadabuu allaha wa rasulah wa qaala anama allahu alayhi wa anamta alayh qarana ismahu bismihi fi hadihi al ahkaami wal ahwaali taadiman lahu wa tashrifan sallallahu alayhi wa sallam mu ne ba tey bokk na ci ngëneel yi nga xam ne yàlla jox na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam te amul benn charte amul benn limite itam lépp loo xam ne war nañ cee topp ndigal yàlla rek war nañ cee topp ndigal yonent bi lépp loo xam ne war nañ cee bàyyi tereem rek war nañ cee bàyyi li nga xam ne moom la yonent bi amul benn charte xam nga nit yi Moussa yi nañ Moussa ne ko duñ la gëm mukk lu may ñu gis yàlla jar ci digg bëccëg ci lu nelaw waaye nag moom nga li nga xam ne moom la yàlla jagleel mu jagleel jagleel ko ko moom yonent bi sallallahu alayhi wa ba pare lënkale turam ak turu yonent bi ci mbooleem axkaam yi ak mbooleem atte yi amu kenn amu ko ci ñoom ci yonent yi moo xam lu mu dige la wala tëkku la walla ku jéem a xeex ak yàlla la walla kuy delloo yàlla la wala koo xam ne yàllaa ngi def intiqaam ci yow wala koo xam ne yàllaa ngi lay yërëm wala koo xam ne uyu nga yàlla boo uyoo yàlla te uyoo yonent bi des na wala nga xam ne mooy nga yàlla ak yonent bi mbooleem laay nga xam ne ñëw na ci alquran dafa tënk dafa boole turam ak turi yonent bi ci mbooleem axkaam yi ci mbooleem xudud yi ci mbooleem farata yi ci mbooleem naafile yi lépp turam ak yi yonentu bee ànd sallallahu alayhi wa jagleel la gum ko jagleel walis yeneen mbokkam yi ba ca laaya ji ci mujj anama allahu alayhi alayhi waaw moo tax ku bëgg noppalu daal bay boo nga jébbal sa bopp lépp yonentu bi rek xam na yàlla li doon jox jox na ko ko moom ku amati rek moom moo la jox sallallahu alayhi wa maa ruwiya fi baabu maa ruwiya fi taqaddumi nubuwatihi qabla tamaami xalqi aadama salawaatu llahi alayhima wa salaamuh xaddasanaa ahmadu bnu yaquuba ibnu lmahrajaan qaala xaddasanaa jacfaru bnu muhammadin ilfiryabi xaddasanaa umaru bnu xafsin altaqafiy dimashqi qaala xaddasanaa alwaliidu bnu muslimin qaala xaddasanaa alawzaaci xaddasanaa yaxya bnu abi kathiirin an abi hurayrata qaala su'ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wa sallama mataa wajabat laka nubuwa qaala bayna xalqi aadama wa nafxi ruuxi fii ne ba tey ci ngëneel li nga xam ne jox nañ ko yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam yonentu yi am na ci loo xam ne njëkk ñuy bind aadama mi nga xam ne mooy maamam ci la kooko yàlla jox solo nañ xadiis jëlee ci abu hurayra radiallahu anhu mu ne laaj nañ yonantu bi salallahu alayhi wa sallama ne ko kañ la sag yonantu war maanaam kañ la la yàlla jox nubuwatu yonantu bi ne ci diggante fi ñu bindee aadama ak fii yàlla di dawalee roxo ci moom ci diggante boobu lañ ma jox nubuwatu nga xam ne kooku boobu ak yónneekoom njëkk na sax bindab aadama mi ñuy wax naan mooy maamam sallallahu alayhi wa sallam xaddasanaa abu amarin muhammad bnu ahmad bni hamdan xaddasanaa xaddasanaa alxasanu bnu sufyaan xaddasanaa xarmalatu bnu yaxya qaala xaddasanaa abdullahi bnu wahbin xaddasanii muaawiya xaddasanaa xaddasanii muaawiyatu bnu saalixin an saciidi bni suwaydin an abdil aclaa bni hilaalin asulami an alcirbaadi bni saariyata qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayhi wa sallam yaquul inni inda allahi maktubun la xaatamu nabiyina aadama la munjadirun fi tiinati ba tey solo nañ mu ne déggee ci yonentu bi sallallahu alayhi wax ne man fa yàlla bind nañ ne maay mujjante li mboolem yonentu yi te mu ne ba yàlla di bind loolu boobu aadama ñu ngi koy mooñ ci ban bi nga xam ne ci lañ ko bindee bindaguñ ko kon moom ak yonentam jiitu na bind ak aadama walla roxo di daw ci moom sallallahu alayhi wa sallam حدثنا أبو بكر بن مالك حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا معاوية عن سعيد بن سويد الكلبي عن عبد الله بن هلال السلمي عن العرباض بن سارية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته حدثنا أبو أحمد بن محمد بن أحمد حدثنا عبد الله بن محمد بن شيرويه حدثنا إسحاق بن إبراهيم حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر حدثنا همام قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون يوم القيامة solo nañ jëlee ci Abu Hurayra radiallahu anhu xadis bi ko jiitu Arbaad ibnu Saariya jàngoon nañ ko mooy yonantu bi nee na moom fa yàlla bind nañ ne moom mooy mujjantali yonantu yëpp te boobu aadama ñu ngi koy jàllar bi ci ban bi nga xam ne ci lañ ko bindee abu hurayra nag moo solo xadis bi ci tegu mu ne bi ne na ñun ñooy ñi mujj te ñooy ñi jiitu bis penc ñun nag bu ko waxee moo xeetam yépp la ci jublu sallallahu alayhi wa sallam حدثنا أبو طاهر محمد بن الفضل ابن محمد بن إسحاق بن خزيمة قال حدثنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن أحمد الحياري حدثنا عبد الله بن شبيب وحدثنا سليمان بن أحمد حدثنا موسى بن هارون حدثنا محمد بن إدريس عن عمر الوراق الحميدي قال حدثنا محمد بن عمر بن إبراهيم بن محمد بن جبير قال حدثتني جدتي أم عثمان بنت سعيد بن محمد بن جبير عن أبيها سعيد بن محمد بن جبير عن أبيه قالت سمعت أبا جبير ibni ibna mut'amin yaqul lamma sami lamma ba'atha allahu azza wa jalla nabiyahu wa adhara amrahu bi makkata xarajtu ila shaami فلما كنت ببصرى أتاني جماعة من النصارى فقالوا لي من أهل الحرم أنت قلت نعم قالوا هل تعرف هذا الذي تنبأ فيكم قلت نعم فأخذوا بيدي فأدخلوني ديرا لهم فيها تماثيل وصور فقالوا انظر هل ترى صورة هذا الذي بعث فنظرت فلم أرى صورته فقلت لا أرى صورته فأدخلوني ديرا أكبر من ذلك الدير فإذا فيه تماثيل وصور أكثر مما في ذلك الدير فقالوا انظر هل ترى صورته فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصورته وإذا أنا بصفة أبي بكر وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا هل ترى صورته qultu naam wa qultu laa uxbirukum xatta aclama ma taquluun qaalu ahada huwa qultu naam wa ashaaru ila jabhati rasulillahi sal allahu alayhi wa sallama fa qultu allahuma naam ashhadu annahu huwa qaalu hal tacrifu hada qultu naam qaalu lii nashhadu anna hada saaxibakum anna hada saaxibakum wa anna hada la xalifatu min bacdi ba tey ci teraanga yi nga xam ne yàlla teralee na ko yonentu bi sallallahu alayhi wa solo nañ jëlee ci abi jubair ibnu mutaam mu ne bañ yónnee yonentu bi sallallahu alayhi wa ci makka mu ne mbiram feeñ foofu yëpp ci makka ak li ko wër moom dafa génn bis jëm Sham moom ibnu jubair moom mu ne mu gis ci bëtam mbooloo moo xam ne ci nasara yi lañ bokk mu ne ñu ne ko ndax yow ci waa xaram nga maanaam ndax yow ci waa màkk nga bokk mu ne leen waaw ñu ne ko ndax xam nga kii di yonantu yonantu lu foofu ci makka ci yéen yonantu bi lañuy wax mu ne leen waaw mun nañu jàpp ci loxoom dugal ko ci benn kër ci seen këri jaamu yooyu ñuy amee mu ne fekk ay esthétique ay photo yu bare ñoo fa nekk mu ne ñu ne ko xoolal fii nii ndax da fi gis melow photo yi yonent bi nga xam ne moo feeñ foofu ci yéen mu ne mu xool gisul melo yonent bi foofu mu ne leen déedéet gisuma ko fii mu ne ñu dugal ko ci beneen kër ci seen këri jaamu yi bu gën a rëy boo xam ne statue yu bare fa nekk ak photo yu bari mu ne ñu ne ko xoolal fii ndax danga gis meloom fii mu ne ma xool moom ibnu jubayr mooy wax gis melo yonantu bi sallallahu alayhi wa ak porteleem mu ne ma xoolaat gis melow abu bakrin siddiq radiallahu anhu mu ngi jàpp ci cati bu bi yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam moom seydna abu bakar ci foto ba mu ne ñu ne ko ndax gis nga photom mu leen waaw gis naa ko waaye nag duma leen wax dara duma leen leeralal dara ba ba may xamee li ngeen jublu ak li ngeen bëgg a wax mu ne ñu joxoñ jéy yonantu bi sallallahu alayhi ci photo ba ne ko ndax kii la mu ne leen moom la maa ngi seede ne moom la mu ne ñu ne joxoñ dañ joxe ba mu ne leen see baa ngi seede ne moom la ñu ne ko ñun itam ñu ngi seede loolu ñu ngi seede ne seen waay jooju ci Makka feeñ ci Makka moo nekk nii kii nga gis nag mu jàpp ci cat mbubam mi mooy Aboubacar Siddiq mi nga xam ne ëllëg bu fi jógee mooy nekk xalifaam kon xam dëgg ak topp ko loolu lu yàlla di may nii rek la waaye lii yëpp ñoom gis nañ ko te taxul ñu gëm yal na yàlla dëgëral suñu gëm yi sallallahu alayhi wa sallam